ñoom de yàkkamtiwul waaye ñun ñoo yàkkamti ñoom kilifa yi waa nguur gi ñoom yàkkamtiwul waaye ñun ñoo yàkkamti ndax ñun ñoo leen bëgg a jiitu ci lañ bëgg ndax li tax ma wax ko mooy gis nga fukki fan ak juróom yooyu ñu joxe woon waxuñu woon buñ ci àggee dañuy wàññi njëg dund gi waaye des na teg ay jéego yuy màndargaal wàññi njëg dund gi ay mesure lañu waxoon yu jàmp des na ko teg waaye nag amaana ñu bari ci askan Sénégal bi ñu déggee app boobu dañ ne kon bu nee ba àgg ca app booba den wàññi njëg dund gi dégg-dégg ba ci ñoo bari amoon fekk demewut noona des na teg ay jéego yu ràññeeku waaye ñoom itam comme ni ko premier ministre Ousmane Sonko waxee teeloo nañoo gindeeku ni teeloo nañoo gindeeku ni wàññi njëgi dund gi du noonu ndax amaana tey boo ko defee jàmp nii da nga gaañ ñu baree bari da nga dimbali ñu bari waaye da nga gaañ ñu bari loolu la ñuy wax ay waay jàmmi waay ñu saafara su jur jàngoro léegi dafa am lu njëkk li njëkk mooy xool nag nga mën a def ba kenn du ci gaañu waxtaan ak nga xam ne ñoo ko séq comme li nga wax dal na secteur privé bi waxtaan ak ñoom ba noppi yeneen ñi nga xam si ne ay acteurs lañ yëngu ci wàllum yaxantu di commerce ak ñeneen ñi nga xam si ne dañuy faral di importer di indi yooyu yëpp waxtaan ak ñoom xool naka lañ mën a def ba teg ay jéego kenn ku nekk joxe na xalaatam daaneen jot naa ne suñ defee nii def nii def nii buñ boolee xalaat yëpp nag dina mën a ne ngir ñu xal an wan yoon la ñu jaar ngir mën ko def gis nga boo gisee ku mel ni Serigne ndax digg nga ko yu bare bare mu wax ci wàllum njëgu dund ki te moo yor wàllum commerce mais mu ngi ci liggéey bi déggoo saa su nekk mu génn di wax nangama nangam tey lii mu wax nii ni ñu ngi ci def ay jéego tey itam njort nañ ni balaa yàgg dañ ci liñ ciy liggéey dina noppi ba askanu Sénégal xam ni def nañ ay jéego ngir wàññi njëg dund gi kon li ëpp solo mooy gis nga mbir boo ko dénkee li naan njiit kenn du ko jiital ba noppi di ko fakkastal dañuy def ànd ak dal di leen bàyyi xel ci li ñu bëgg ndax ñoom ñox ñun li ñu bëgg ñoom mooy seen ndam bu fekkente ne defuñu li askanu Sénégal bëgg ñoom la ñu bëggoon dañ koy wax dañ ciy lajj mooy wàññi njëgi dund gi bokk na ci li gën a soxal askan wi ñoom xam nañ ñoo soxal askan wi ñu ngi liggéey li warate askan wi jamono ji mooy gunge leen ci te ñaanal leen ci tey itam ñoo xam ne doonut lu yomb ndax réew moo xam ne li ëpp ci li ngay dundee da nga koy jéggaani ceeb bii nga xam ne moom la ñuy ëpp lu ñu dundee amaana am na lu ñu fay bàyyi ci waaye la ñuy jéggaani moo ëpp ceeb bii ñuy dundee nga xam ne kër goo dem ci sa bés bu yàlla sàkk ceeba nga fa moom la ñuy dundee dañ koy jéggaani bu fekkente nag lépp li ngay dund yëpp da nga koy jéggaani nga bëgg a xëy xëy wàññi njëgi dund gi te amaana am na ñoo xam ni jëndi woon nañ lu baree baree bare fi mu ne ñu mi ñu denc waaye tey boo jëlee dogal ne wàññi naa njëgi dund gi ñoom nañu def seenu ceeb borom yi nga xam ni ban jëndee xorom ban jëndee sukar ban jëndee mburu ba ban jëndee ñu baree bare baree bari boulangerie yi ban jëndee seen i farine denc yàgg na tey boo ne da ngay wàññi nangam amaana da leen di gaañ kon li jot mooy waxtaan ak ñoom bu fekkente ne xool nga naka nga def ay ndàmpaay mënta ñàkk ci ñu baree bari ci ay opérateur nga dàmp leen xool naka lañ mën a def itam ba wàññi njëg dund gi tey dem am na loo xam ne ko teel a waxaat mu di suñu wàññee njëg dund gi ba ba jël dogal ni wàññi nañ ko moo xam muy li njëkk a wax ceeb mburu sukkar ak diw juróom ñeent njëkk a wax nañu fexe bi buñ ko wàññee na am ak topp ak saytu mu di suite bu am solo suivi ci ñàkka muy borom buti gi xam nga dañuy wàññi aw njëg ñi wàññi nañ jëg nangam mais boutique dañuy bëri dañuy wëy di ko jaay dañ ko doon jaay te askan duñu xam fu ñu koy jàmbate tey Sénégal ngay dugg fi dem ci boutique bii ñu jaay la xorom juróom wala boog gën waa libru xorom jaay la ko fukk juróom nga dem ci beneen boutique mu jaay la ko ñaar yooyu nekk nay mbir yoo xam ne warees na a lijjanti te boo laajee leneen lañ lay wax mooy fan ko jëndee bokkut wala njëg gi bokkut wala xorom mbir yoo xam ne day lënt tey itam lépp benn lay doon moo xam muy café gi moo xam muy sukkar si yépp ay benn lay doon kon daal li war mooy gunge nit ñi wala boog gunge ñi cay liggéey ban gis seen bopp waaye tamit gunge askan wi ba saa bu wàññeekoo askan wi mën a dem ci boutique bu man di noonu jënde fa li nga xam si ni moom la nguur gi wax mu leer ci bopp ñëpp bu ñu nee kilo sukar nañ ko léegi ñeent fukki dërëm lay jar wala boog wàññi ko léegi juróom ñetti fukki dërëm lay jar di 400 ñu ne la ceeb wàññi nañ jar 250 francs léegi ñun la kilo wala litre diw wàññi ko nangam lay jar mu leer ci bopp askan wépp nga xam ne tey su ma jugoon tey jii dem ca boutique bee di jënd kilo ceeb munuma koo jëndee lu ëpp juróom fukki dërëm ak boutique nag bu mu mën di doon foo mën a nekk Sénégal waaye tey da dikk fii ñu ne la West boo fi mënoo boo fa jëndee nangam nii boo demee boutique ba nekk Pikine mënoo ko fa jëndee loolu lan mooy jafe-jafe bi West Foire nekk biir Dakar Pikine nekk Dakar tey ñu ne la milieu bi affaire yooyu nag nekk na mbir yoo xam ne war nañ koo teel a kilifa yi nañ war a askan wi ci fànn woowu parce que askan wi dundee Pikine ñooy dundee West Foire gi ñu naan day cher fii parce que amaana milieu bi moo tax ak yooyu yooyu nekk na mbir yoo xam ne lu ñu war a defar la la ñuy jëndee Pikine nañ koy jëndee Ouest Foire jëndee ko Almadies jëndee ko fànn bu mën di doon yooyu mooy nekk mbir yoo xam ne wax dëgg yàlla moo tax askan yépp mën a gis seen bopp ci réew mi ni muy doxee ñoom ñi ngi def ay jéego nañ leen gën a gunge gën leen a jàppale te ñu gën baral jéego yi ndax amaan na li ëpp ci askanu Sénégal jamono ji moom la ñuy xaar dajale parti yëpp Cheikh est-ce que waruñu ko woon njëkke par rapport ak euh, li nga xam